bi ñu tuumaal ne moo faat Elimane Touré dëkk yëmbal te ñu tegoon ko loxo ci commissariat du port dafa daal di setal boppam indi leeral ci mbir mi ni mu demee. mu ngi doon euh, dóor waar fële na la ci poor ñu woo waa commissariat spécial port ñu ñëw jël ko ndax euh, euh, càmbar mbiram yi noonu lañ ko gardé à vue ci poor nag ñu dugal ko ci cellule boo xam ne nag ay kilifa sax dugal nañ leen foofu. dafa am ay yenn jumtuwaay war a am lal ak yooyu euh, ci drap boobu nag mu doon tëddee moom la xotti mu takkee ko boppam am nañu ay euh, nataal yu mun a firnde loolu te euh, ba ñu constaté loolu waroon nañu euh, waa sapeur pompier ñoom ñu ñëw jël si néew bi yóbbu ko commissariat yóbbu ko hôpital Dantec. naka la doomu yëmbal bi mën a xaroo te takk der yi bàyyi xel ci moom. nekk na loo xam ne xel mun na mun na koo bañ waaye du loo xam ne rek Sénégal rek lay xew. même ci prison yu gën a dëgër ci États-Unis dafay am ay prisonniers yuy rëcc euh, ay prisonniers dañuy ci sax fii ci Sénégal fu ñu ko dugaloon dafa wuute ak fu ñuy dugal des fois yeneen euh, prisonniers yi yeneen euh, gardés à vue yi parce que foofu comme wax naa ko am na ay kilifa yoo xam ne sax jaar nañu foofu di yaatal nit nag. peut-être mun na am mu profité ci yaatal boobu moom mu def njombe bu mel noonu. police xamal nañ ne ubbi nañu l'enquête ci mbir mi. procureur euh, li ci li ci yoon wax rek euh, day ubbi daal di ubbi enquête euh, ñu mu laaj fekkee ne comme ni ñu ko waxee famille bi dañu bëgg mu gën a leer même procureur ci boppam mu gën a leer ci boppam mu wax ñu établir benn autopsie. autopsie nag moom la ñuy xool médecin yi ñoo koy xool légiste bi ba wax nit ki nakat lii moo ko faat voilà boo conclusion yi daal loolu la ñuy xaar mais amuñu ci benn ñaaw njort ndax xam nañu euh, lu ñuy wax yi euh, lu ñuy wax nii moom moo am dëggantaan. Elimane Touré li taxoon rek ñu téye ko ci kàddu polis nee na euh, dafa tëkku woon benn dëkkandoo am mu demoon kalaame ji ko ci police yu yëmbal daal di ko teg loxo laata ñu koy yóbbu ci commissariat bu poor fi nga xamante ni fa la ñàkkee bakkanam